لك لدى رب الورى كل مرام لك بي يا سيدي أصنع احترام جادلنا باك تعالى عدمنا بك فأنت سيدي خير أنا نويت شكر عليك كلا وكل شيء والكتاب ندام نويت شكر عليك بقلام وخيرها يا سجواني الكلام هديتي خذ كرما بلا انسرام يا خايدا لي من إلهك المرام تبت لربي ظائرا بذنب ذنب لك وقبله عبوت بيزام تبت لربي ظائرا بذنب ذنب لك وقبله عبوت بيزام كنت لربي ظاهرا بذا النظام لك وخبله عبوت ميزام وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم يا رسول الله يا حبيب الله yaa xayri xalqillaahi imaamal baraaya ku sopp sayyiduna Muhammad wa innaka la alaa xuluqin aziimin wa innaka la alaa xuluqin aziimin wajhu nabiyyil muntaqal muniiru yuniiru qalba kulli mustaniiru axmadunaa al muxtaari laa yubaahu عند الذي بالبرايا باها نبينا الأحمد نور الرسل عليهم أزكى الصلاة المرسل نبينا الأحمد نور الأنبياء عليهم أزكى السلام من ربيا كتاب أحمد سواه نصا وإنه بخير لن ينسى للمنتقى للمنتقى lil muntaqa lil muntaqa ana ñi bëgg sayyiduna muhammad lil muntaqa alladi taqaddamu sabaq zikrul hakim minu iblisu labaq alayhi salla bi salaamin sarmada fi l ali wal asaabi wa kulli hamida lil mustafa lil mustafa للمصطفى لدى الإله الواحد نور ينير قلب غير جاحد ألا يسكن أكد في كوني أحمدنا المختار نور الكون أحمدنا أخمدنا المختار نور الكون خدمة خير العالمين فأمد صدر العلوم نافعات أفجمت لم ينني شك ولا توقم ولسوى قلبي ينقل وقم قلبي يسنه الجميل عن قبيح وليقود نور في مال يبيه علمني من لوقي والقلم من يقود علم ما لم أعلم زلم نفسه الذي عداني لأنه البارس من عداني يعصمني الباقي من الأقدار في دار دنيا وتلك دار مع النبي الملتقى المنير زلم قلبي زلم قلبي زلم قلبي زلم قلبي وقبى بنوري من زن غير الله يغني أو يدر فذاك في دارين ذو كد السلام عليكم ورحمة الله ñoo ngi leen di ziyaare yéen ñëpp di jéggalu bu baax a baax ci kàddu yi ñu yëkkati ci kanamu sëriñ bi di ko tuub di ko jéggalu bu baax a baax di dalal gan gi bu baax Cheikh Alassane di ko sant di ko gërëm di ko xamal ne ko itam dëkk bii mu ñëw mooy muy dëkkub Cheikh Ibrahima Faati borom Daarul Muxti di dëkk boo xam ne ku tudd yonent bi alayhi salaatu wa salaam sa xel war naa mën a dem ci dëkk bii ndax borom dëkk bi kat boo fi ñëwee di nga fi fekk mu tudd yonent bi alayhi salaatu ay doomam di nga fi fekk mu tuddee Abu Bakar di nga fi fekk Seydina Omar di nga fi fekk Seydina Ousmane di nga fekk Seydina Aliyun di nga fi fekk Seydina Xaalid di nga fi fekk Seydina Abbas di nga fi fekk Seydina Hamsatu te ñooñu ñëpp. ak Zubayru te ñoom ñëpp saxaaba yi la leen tuddee alayhi salaatu wa salaam loolu yi nag bëgg gum bëgg yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo tax mu def ko waaye loolu it nag sëriñ bee ko ci yar xaada lahu llahu maxtaara moo tax bi sëriñ bi dëgmalee yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu dëgmal yonent bi dëgmal saxaabatul kiraamam yi sëriñ bii toog di wax ak yéen alayhi salaatu wa salaam lañ ko tudde loolee doy na sëkk sëriñ bi nag mi lay sant bu baax a baax a baax di yëg sa taxawaay di yëg jàmm ji ngay dox ci réew mi foo toll tam yitteel la lool mi ngi la ci ñaanal itam suñu borom dolli la ci tawféex te dolli la ci ndimbal di leen wax ne daal ñëw ngeen ci dëkk boo xam ne dëkkub diina la muy bañ ko sancee 1912 ak léegi amul genn guddi aj genn guddik altine goo xam ne duñ fi gàmmoo te loolu boo ko sëriñ bi sancee ak léegi léegi mu def ab diir te am na barab bu ñuy wax mawlut guddik altine gu ne boo demee da nga fa fekk ñuy gàmm te loolu yi dangay xam ne bëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam dara féete ko waaye moom doone gulet ndax sëriñ bi da ko yar te Serigne Touba moom comme yar boo bëggee yonent bi waa nga bëgg saxaaba yi maanaam jaadu na ci yow. kon nag seriñ baa ngi lay sant maa ngi jégalu bu baax baax ci kàddu yi te la wax ne daal gis na taxawaay bi gis na liggéey bi gis na itam yi ngay def ci réew mi yëpp barki de moo njaay kaso yi wër nga fa joxe fa ay ñam loolu yëpp itam bëgg koo bëgg réew mi ak bëgg koo bëgg jàmmi réew mi bëgg ñëpp na ci jàmm moo tax nga def ko loolu yëpp nag maanaam yàlla mi ngi ñaan yàlla defal la ci tawféex ci wax ne daal ñëw nga ci dëkk boo xam ne dëkkub diina la dëkkub islam la dëkk la boo xam ne foo tuddee Touba rek Daarul Muxti nga ciy teg loolu yéen ak sëriñ bi moom xam na ko te itam ñi ngi ñaan moom itam mu yàgg fi lool te wér ñaan mu yàgg fi lool te wér di jégalu bu baax a baax ci kàddu yi day ngànt waaye mënuñoo mënuñoo mënuñoo wax ñu ngi jégalu bu baax mbooloo mi salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu gannaaw bi ñu sante yàlla ñoo ngi julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant Cheikh du Bamba tey ñu ngi fii ci Daarul Muxti dëkku maam Cerno Ibra Faati mi ñëpp xam nga xam ni Serigne tubaa moo ni woon Cerno mooy sama loxol ndeyjoor keroog bi Serigne tubaa yi dem ci géej gi njaboot gi maam Cerno la ko dénk tey nag ñu ngi fii ci kanamu xalifaam nga xam ni tey moo yilif daaru muy cheikh Mouhamadul Bachir antañang mu baax mi nga xam ni tey moo toog toogaay maam Cerno Ibra Fàtti Mbàkke ñu ñaan nga yàgg fi lool te ànd ak wér bi ñu dugg see ànd sunu kilifa ànd ak koo xam ni ci réew mi kenn du ko fi présenté ci réew mi ak bitim réew muy Cheikh Alsane Sène tar yàlla mu baax mi toog waaye yitteem yëpp mu jeexal ko nag ci sayyiduna Muhammad di ko liggéeyal bëgg ko ba ku ko tudd sa xel dem ci waa joojee nga xam ni ñu ngi ci weeram ñu ngi jëm ci guddeem muy sayyiduna Muhammad Cheikh Alsane nga ci dëkk boo xam ni ah dëkk la boo xam ni bu nu tuddee Touba rek mën nañ cee teg daarul moxti waaye yow ki ngay waaje ak ki ngay walle muy rasulillahi ba am ñaari doom yu jigéen ñëpp nga tuddee yonent bi nga xam ni ku tudd yonent bi ci sa kanam baa nga yëg ni am na ku bëgg yonent bi ci sa kanam saalal fekkiwu ko sa doole fekkiwu ko ngir cofeel ki nga am ci moom waaye yëgal na ni la dëkk bii nga ñëw di daarul muxti guddi altine ju jot ñu ñu ñu ñu def gàmm rasulillah kon ñëw nga foo xam ni fi nga ñëw ak waxtu wi nga ñëw muy weeru gàmm te gàmm buñ ko tuddee xel yi dem ci yonent bi ah seexaw seexal saan tey bu doon wax ni eh, eh, eh, bi nga diire rek mën nañu wax ni jam nga ndax ndax bi nga toogee ni ni ni géwélu daarul duggee Cheikh Mouhamadul Basir déglu leen ah sama xel daa dem ca keroog bi bi géwél bi ñëwee ci Serigne Cheikh Gaynde Fatma di ko tagg am am ku ne ci wetam ah bëgg koo fem Serigne Cheikh ne ko noppil te bàyyi ko mu wax bu dee judd am naa ko bu dee lu ma may yor naa ko kon nii Cheikh Mouhamadul Basir def day wane ni géwél ak Daarul Muxti yàgg nañu kon nag li baax li ngeen xam wax ko ci Cheikh Mouhamadul Basir ñu ngi ñaan yan wii ak liggéey bi mu nar a liggéeyal way juróom moom maam Cerno mu am ci ndam lu kawe njottam waaye Cheikh Alassane di leen xamal ni jotaay bi yàgg na ko bëgg de ci màggal gi bi Serigne Abbas mu baax mi bi mu fi bàyyi ñëw na fi Cheikh Alassane ñëw na daaru fekk Cheikh Abbas fii New York moom mu jëflanteeg Serigne Abbas sëñ baas def ko doom sëñ Abbas bàyyoo ko keroog jotaay ba yaatu woon na lool waaye nag bi mu fi bàyyi koo moom Cheikh Alassane mu fekk ko bitim réew nekk ci àll ba di liggéey waaye bi mu ñibbisee mu xam ni màggal gi xat na mu ni naa bàyyi ba màggal gi jàll ba nu dugg ci weeru rasulillahi ma ma ma dem daarul muxti jaale ji nag sëriñ Basiru anta ñang mi nga xam ne tag tey ma toog toogay daru waaye nag su ma ko jaalee nag danaa danaa ñëw nuyu si ko dana danaa ñëw sant si ko waaye danaa ñëw fasanteeg moom wëllëre waaye danaa ñëw nag def ko bàyyi mu doon sama bàyyi ne ah dul Moudoul Bachir daal dama yem ci jaale ko déedéet damay ñëw joxanteeg moom loxo ndax Daarul Muxti ku leen xam xam leen ci ci ci ni nu fonkee Sëriñ Tuuba ak ni nu jeexee ci Serigne Touba ku fi dëggu xam ni dëkk bi dëkku sariya la Cheikh Alassane kii toog daaru rek la am daaru la bëgg waaye kii toog Cheikh Madul Bachir mooy borom mbég mi waaye waaye doomi borom mbég mi nag di Cheikh Mouhamadul Muntaxa nag tey mooy Serigne Touba nga jaar Touba jaar ci jumaa ji nga xam ne fenn taxulaa jóg lu dul daarul moxti nga ne ah du ko jaare fenn biir Touba laay jaar romb jaar ci Serigne Touba wanni ko maa ngi jëm nag daarul moxti maa ngi jëm ca ca rakk ja maam Cerno waaye bi nga ñëwee toog Mouhamadul Basir mooy mooy mbégte te yeneen ci bee mbégte weeru gàmm nga jóg ni bala maa dem fenn ki may njëkk ki may njëkk a ziyaare ji ki may njëkk a joxanteeg loxool mooy mooy xalifa daarul moxti mu ngi ni toog kii tey moo yilif daaru kon nag sa ñëw gii ñu ñu ñu yëgal sëriñ bi ni bi muy ñëw ànd nag forte délégation jëwriñ Aale Ndaw di doomi Abbas Ndaw bi ñëpp xam ak Hassan Diallo ak Cheikh Malick Magam Dieye taxaw ak imam Sall mii nga xam ni imam la ca Parcelles Assainies ak Cheikh Mouhamadul Mansour si mu baax mi toog bokk tamit ci ci mbooloo mi ak Cheikh Albunaama bokk ci mbooloo mi ñoom Ndiogoog ñoom Pape Diakhaté ñëpp waaye nag ci biir délégation boobu nag ngeen am ci doom am ci taalibe am ci koo xam ne daaru rek lay wàlle lu ma am te indiwu ko daaru xol xolom xolum du sedd xolum du feex muy sëñ Alioune Badara mi toog nga xam ni dëkk bi rek la bëgg bi ñuy ñëw ni mu nu gàttandoo nga xam ni kii ki ñëw tey daaru bu ko bu ko yëgle woon seex bi ñëppay génn gàttandu ko ndax gan gan gi mu am ak gan gi ñëw kon nag ñu sant sëriñ bi ñaanal ko yàlla yàlla dëgëral ko yàlla taxaw ko dama dama doon def euh, présentation bi waaye damay bàyyi cheikh bi ci boppam mu yëkkati ay kaddu yoo xam ne sëriñ bi dana dégg ak kaddoom ak njaal gi nga xam ne dana ko ko jaal jëmee ko ci ba Bassirou Mbacké cheikh bi ne gannaaw bi ñu sante yàlla des nee na des di ko sant di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. nee na di julli ci sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. damay nuyu sëriñ bi. nee na dafay nuyu sëriñ bi. di ko ndokkeel. nee na di ko ndokkeel. ci weeru turandoom nee na ci weeru turandoom bi di ko santaat bu baax. nee di ko santaat bu baax. ci dalal. ci dalal. bu tedd bi bu tedd bii. bi nga xam ni moom ngeen ko dalal. bi muy bi muy dugg daaru. yegsee ci buntu kër gi. bi mu yegsee ci buntu kër gi. ak bi ñu duggee ci biir saal bi. ak bi ñu duggee ci biir saal bi. ak ni ñu ko teeroo moom. ak ñu ñu ko teeroo moom. bi mu génnee ci néegam. bi nga génnee ci sa néeg. mu nekk mu nekk. lu nee na lu rëy ci ñun. ñëwoon nañu nag. ñëwoon nañu nag. ngir jaale ko. ci suñu baay bi fi bàyyi ko. ci suñu baay bi fi bàyyi ko. muy Serigne Abbas. di ko ñaanal. ne di ko ñaanal. yàlla yokk leer ca moom. yàlla yokk leer ca moom. ñëw jox suñu njaal. nee na ñëw jox ko suñu njaal. mu ko njabootu mu jébbal ko nag njabootu borom daaru gi yëpp. di ko santaat. ne di ko santaat. xam nañu ne yéeneem yëpp. xam nañu yéeneem yëpp. ci toogaay bii mu toog. ci toogaay bii mu toog. ak yéeneem yëpp mooy réew mi am jàmm te loolu la ñëpp war a dox ci jamono ji ñu nekk mooy réew mi am jàmm te loolu te loolu rek la sëriñ bi saxo moo tax sëriñ bi ci weeru tedd wi ne ci weeru tedd wi muy weeru bi sallallahu alayhi wa sallam muy weeru sayduna muhammad sallallahu alayhi wa naa ci waxaale sax. ne dana ci waxaale sax. baat bi ñëpp di wax. baat bi ñëpp di wax. ñi dégg. ne ñi dégg. dëgg dëgg. dëgg dëgg. diggante. diggante. yonent bi. yonent bi. ak Cheikhul Khadim. ak Cheikhul Khadim. mooy jërëjëfee Serigne Touba. mooy jërëjëfee Serigne Touba. ci taxawaayam. ci taxawaayam. ak ni mu meloon. ak ni mu meloon. ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ci yonent bi sallallahu loolu loolu le. moo wesaare wu jàpp daaru jàpp tuuba képp koo xamante ni sa xol mi ngi ci gën gi mi ngi ci gën gi mindéef sa xol dafay tàbbi ci moom sallallahu alayhi wa sallam maa ngi ñëwoon sëriñ bi ne mi ngi ñëwoon sëriñ bi jox suma kóllëre ne di la jox kóllëreem ndax xam naa ne xam naa ni ku ko mën a téye ku ko mën a téye nga wax nañu ko wax nañu ko. jëwee nañu la ko. jëwee nañu la ko. wax nañu ko foo nekkul. wax nañu wax nañu ko foo nekkul. jëfee nga ko. jëfee nga ko. ba loolu. ba loolu. law fépp ci nag ci réew mi. te yaa ngi fii toog biir te yaa ngi fii toog nag biir daaru moo tax ma jox la saa bas. moo tax mu jox la basam. wëlbatiku it. wëlbatiku it. ñaan la ñaan la nga boole ma nga boole ko ci njaboot gi loolu daal loolu daal sàkku nañu ko ci sàkku nañu ko ci yow xam nañu ni xam nañu it njaboote nga ñëpp njaboote nga ñëpp njaboot googu ñun njaboot googu ñun lañu bëgg a tàbbi lañu bëgg a tàbbi suñu yéene nag suñu yéene nag borom xam bu mag ne dafa am benn borom xam-xam bu mag bu wax soo amee mission. bu wax ni soo amee mission. soo ko doxee. soo ko doxee. def nga li la war. nga li la war. soo ko doxul. soo ko doxul. war nga. war nga. ki roof ca yow. ki roof ci yow. mission boobu mission boobu. man sama mission yëpp. ne mission am yëpp. mooy fépp fu diine ne. mooy fépp fu diine ne. fépp fu nit ku baax toog. fu nit ku baax toog. di ñaanal réew mi. di ñaanal réew mi. rawatina sa jëmm ji. sa jëmm ji. ñu dox fa ñu ne. ñu dox fa ñu ne. ca moom. ñëw ca moom. sàkku ca moom ñaan. sàkku ca moom ñaan. jox ko sunu kóllëre. jox ko sunu kóllëre. bàyyi koog sunu bopp. bàyyi koog sunu bopp. moom moom. ndax jàmm jooju muy dox. ndax jàmm jooju muy dox. dafa mel ni. dafa mel ni. ku toog ku toog. ay junni at. ay junni at. di tàllal loxoom. di tàllal loxoom. dékku ko yàlla. dékku ko yàlla. yàlla nangul ko. yàlla nangul ko. loolu mu ko nangul. loolu mu ko nangul. soo ñëwee tabbi ca moom. soo ñëwee tabbi ca moom. dana dana dana dana daganal sa yëf. dana daganal sa yëf. dana roof ci yow mbégte. dana roof ci yow mbégte. mbégte moomu sëriñ bi. mbégte moomu sëriñ bi. bi ñu toogee ak yow. bi ñu toogee yow. am nañu ko. am nañu ko. bu kawe lool. bu kawe lool. suñu njort suñu njort. daa mel ni. daa mel ni. la daloon baykat bi. la daloon baykat liggéeykat bi moo ñu dal tey mooy tabbi ci tabaski lool li dafay def ca jaam dafay def ca jaam lu raw mbégte yaakaar naa ni olof mu ngi koy woowee mbégéré loolu dal nañu ci sunu toogaay ak yow yal na yàlla yàggal sa taxawaay yal na yal na yàlla yàggal sa taxawaay mission yi nga am mission yi nga am am ko ci daaru am ko ci daaru daañ ci ànd ak daan ko ànd ak yow. waaye dañu ñaan yàlla dañu ñaan yàlla aussi. lépp loo xamante ne nas nga lépp loo xamante ni nas nga ko. ci dëkk bu tedd bii. ci dëkk bu tedd bii. yal na sunu borom. yal sunu borom. àggale ko àggale ko. nga fekkee nga fekkee. tetal tetal. ci barke yonent bi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ci barke sa maam. ci barke sa maam. ci barke Seexul Xadim. yal na ko yalla def. maa ngi lay jéggalu aussi. maa ngi lay jéggalu aussi. ci waxtu wi sax. ci waxtu wi aussi. ñu la génne sëriñ bi ñu ngi la ciy jéggalu jégglu bu baax. waaye nag xam nañu ne. waaye xam nañu ni. sa mission yëpp. sa mission yëpp. mooy nekkal fi. mooy nekkal fi sunu borom sunu borom. ak ñi mu fi ñi ko fi nekkal. ak ñi ko fi nekkal. na yàlla fay la yàlla fay la. ci barke yonent ci barke yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. maa ngi nuyu njaboot maa ngi nuyu njaboot gi. ci ni ñu ni ñu ko dalalee. Seydina Alioune. Seydina Alioune. wax na ma lépp aussi. wax na ko lépp aussi. ci taxawaay bi ci taxawaay bi. ak ci cofeel gi am ci ñoom cofeel gi am ci ñoom. jëm ci man jëm ci moom. may tamit gi ma am. ne cofeel gi ma am. jëm ca ñoom ne jëm ca ñoom. eggee naa ko ko eggee naa ko ko. te wesaare na ko. maa ngi lay sant mu ngi lay sant sëriñ bi di la gërëm. di jéggalu ci di jéggalu ci kaddu yi. wasalaamualeykum wa rahmatullah. taala wa barakatu. auzu billahi mina seytaani rajim. bismillahi rahmaani rahim. rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullah Cheikh Alassane sëriñ bi mi ngi lay nuyu nuyoob diine nuyoob lislaam nuyoo ba gën a tedd di am mbégte bu baaxit ci sa teewaay fii ci kanamam di la ci sant di ci sant njaboot gi nga xamante ne it ñoom nga àndandool ba lii sotti muy Alioune Badara ak Cheikh Mouhamadul Basir mii nga xamante ne moom lañ ko tudde fii ci kër gi la nekk ak mbooleem njaboot gi nga àndal yëpp teew ci kanamam tey moom nee na dafa am mbégte mu rëy rëy ci kanamam moo xamante ne moo ci am rek am na lu ko ëpp ndax li tax mooy li nga jàkkaar lool rek doy na exemple mooy bibliothèque bi nga jàkkaarloo rek doon exemple mooy wane ci ne moom li ko ñor mooy li ngay dox loolu rek ko ñor te mooy diine te mooy lislaam te mooy ay mooy ak bokkoo mooy doon benn ndax bis bu xëyee ci loolu lay xëy ndax daara jii nga ñëw tey ñi nekk ci dëkk bi yëpp si na koo seere mooy daara ji nga xamante ne mën nañ koo tudde li wala fii tudde garam place mooy waxtaanukaayu boroom xam-xam yëpp mooy waxtaanukaayu xale yëpp mooy waxtaanu kër mooy këru ñëpp ñëpp la boole ñu doon benn sëriñ Abbas mu ngay wax yàlla na suñu boroom yokk ay leeram fa mu nekk ci barsàq mu nekkoon jëmm joo xam ne moom moom mi dañuy benn ndax sëriñ Abbas moom fi jógee ab taawam moom mi la ko tudde toujours daf koy wax ne bariwaa na ci yoon wi sax ñoo xam ne daawuñu ko gis nit koo xam ne mooy sa mag di sa kilifa di sa yëpp say mag nekk fi mu jël ab taawam tudde la ko kon kóllëre gu sore sore la woon diggante moom moom kon mu ne kër googee nga ñëwoon béréb boobee nga ñëwoon ba kooko jàppe woon la baay jàppe woon la doom jàppe woon la euh, jawrin ju nekk ci biir kër gi nee na fii nga ñëw tey dafiy yokkoo cër buñ la joxoon foofu danañ la jox cër bu ko ëpp fii ndax gis na sa taxawaay ndax moom du kuy umpale ndax ni ma la joxe exemple léegi ne la li nekk ci sa kanam doon na la exemple moo lay wane ne la lu dox ci réew mi mi ngi koy xam lu ci nit di doxit mi ngi koy xam mi ngi seetaan sa dalte mi ngi seetaan sa yarute mi ngi seetaan nit bëgg gi nga xamante ne bëgg nga ko réew mi nga xam ne bis bu set yaa ngi ciy dox ay jéegu yépp yoo man ngir réew mi nekk ci jàmm ngir réew mi dal ngir réew mi nekk ci mucc ndax di ko seex Cheikh Mouhamadul Basir léegi am na benn documentaire bu ñu doon seetaan boo xam ne yaa nga ca ay kii yu ñu doon joxe ci prison yi biñ ko ko waxee moom def caa teg ne ah lii de doy na bëgg jàmm ndax nit ñu nekk ci ak jubadi ak ñu ñu tooñ ak ñoo xamante ne yoon a dal ci seen kaw ñu dem ba téye leen ci bërëb xaaj na war leen a fitnaal wala war leen a teg ci yoon yow ñooña nga di leen bàyyi xel ngir bëgg ñu dellusiwaat ci kaw suuf si ba nekkaat ay doomu aadama dafa doonoon image bu kawe ci moom dafa doonoon lu rëyoon ci moom ba tax na ñëw gii nga ñëw yàgg na ko bëgg tey la ko suñu borom dogal ah la ca desit nag mooy tagg wi nga xamante ne yaa ngi koy wut ñi di la ko tagge muy tagg yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam dangaa ñëw ci béréb boo war a ñëw dangaa ñëw ci béréb boo xam ne boo ñëwee loolu nga fiy fekk Cheikh Mouhamadoul Basir junñu na ko léegi ci waxam fii rek mooy béréb boo xam ne 1912 ba léegi tabax nañ fi ab béréb boo xamante ne al dimanche guddi dimanche gu nekk danañ fanaanee mawlud ba bët mësta manqué 1912 ba léegi benn bis mësu ca manqué ñi koy def bu doon taw wala muy tawi xal wala muy tawum ndox wala lu metti metti wala luñ tumuranke ñu demoon ba amuñu luñ lekkit guddi googu danañ dem defi ko mm-hmm. boobu ba léegi mësta manqué fii ci dëkk bi gàmmu gii ñuy jub si niñ koy doxale mooy gàmmu gi ñuy jub si bis at mu jot ñetti ñetti ñetti bis lañ koy def ndax danañ ko gàttandu ca bis bu njëkk ba màggal bis ba gunge ko ca bis ba sëriñ bi door a ñaanal nit ñu ñuy beeku noonu lañ koy waaji te kenn du nekk sa kër ñëpp sëriñ bi da leen di wax ñu dem ca penc ma kenn ku nekk da ngay tëj sa kër ñëpp ci digg penc ma lañ koy defee toog fa toroxlu ba ñetti fan yi jàll kenn ku nekk dellu sa kër kon loolu bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mënu ko borom dëkk bi noonu nga ko waxee bi mu demee ba nga xamante ne bi fi sëriñ Touba nekkee nga xamante ne ay doomam yëpp da koo tànn ñi ci mag mu tudde leen yonente bi sallallahu sa wa sallam moom mi yonente bi lañ ko tudde ñi ci ëpp bi lañ leen tudde bi sëñ Touba defee loolu ba nga xamante ne moom agsi na ci moom ñi ci des ñëpp bëgg gi mu xamoon ne sëñ bëgg na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam tax na ay doomam yu mujj yëpp ashaabul mubasharata bil janna la leen tudd mooy fukk yi nga xamante ne yonent bi goreel na leen ci goreel na leen ci safara nga xamante ne seeni kër a nga àjjana ñoom ñëpp moom la leen tudde Cheikh Basiru lim na ko léegi Seydina Subayru Miqdaar Xaalid ibnu am Amsatu Aliyun ñëpp desul kenn Seydina Ousmane desul kenn ñoom fukk yëpp kenn ku nekk tudd na la doom kon loolu dafay wane ne ñëw nga ci sa bis ñëw nga ci sa kër ñëw nga ci sa jataay sëriñ bi nag bi mu la dalalee ba noppit la muy tëjee ay kàddoom rek nee na na sam xel dal la ngay sàkku ci moom dana la ko defal dana nekk sa waajur dana nekk sa kilifa dana nekk sa xarit dana nekk sa lépp lépp loo xamante ne war na la caa jàppale wala mu war la caa taxaw dana ca taxaw ba dara du ci manqué ah, moom nag nee na taxawu ko moom yomb na ndax dara ñoru ko du boppam du njabootam du dara lii ko ñor daal mooy lii ko sëñ Tuubaa bataleel borom daru batale ko ko te mooy dëkk bi mooy jàngukaay yi mooy daara yi mooy mooy mooy mooy jàkka yi loolu la bëgg ku ñëw ci dëkk bi xam ne borom dëkk bi sunna rek la doon dundal ci loolu rek la nekk moo tax wóoteelul dara boppam tey boo duggee ci biir bay waxtaan ak moom incha allah yu ci bari dana la ko leeralal waaye li ko ñor daal mooy loolu ma la wax nii moo ko ñor ndax bi nga xamante ne ñëw na lëm projet bi mu njëkk a yëkkati nga xamante ne dis na ko tàmbali bu ba noppi incha allah bu bi mu njëkk a waxati dafa wax ne Serigne Mountakha ginnaaw dafa taxawal ab jànguwaay boo xam ne université la bëgg xale yi lañ doon def ci ñoom ci bitti ba buñ ñëwee suñu mag ñi fi nekk ñu di leen weddi wa ñu di leen wax lu ñu wër leen war ta wax léegi Serigne Mountakha ne nañ formel suñu bopp suñu njaboot ndax buñ leen yaralee leen suñu bopp duutuñu ci manqué dara Serigne bi ba mu ko déggee ne Serigne Mountakha dafa taxawal ab université la mu njëkk def mooy daal di taxawal ab école fii boo xamante ne day tàmbulee ci xale bu ndaw bi dal basin

Euh, di sant njaboot gi nga àndal yëpp it nag ci taxawaay bu rafet bi ak Pastef bi di wax ne leen moom loolu la ñor nga xam ne ci ngay xëy suba di ci yendu moom it ci lay xëy mm. mooy dajale lépp rek ndax moom nee na lépp benn la tarixa yeeg yëpp aw rek la li fi nekk mooy ku tedd ki mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ku ne branche bi nga xëcc ci branche foofu rek la jëm amul beneen yoon yoon yi nag mën nañoo tàqalikoo kii jaare fii kii jaare ko fii kii jaare ko fee waaye dajewu waay bi benn rek la te mooy yonente bi sallallahu alayhi ñëpp foofu la ñuy daje kon nag bi nee na bi nga ci dox te di ci dox dox yin wu rafet sëriñ bi nee na sedd na xolam euh, ñëw gi nga fi ñëwit mbégtee ma lool ba mënu ko wax sax nee na mbégte mu réerée la ci am kon mi ngi lay dalal jàmm fii ci Darou Mouhty te di la ubbil bunt yi fi nekk di la wax ni la sa kër nga ñëw ci say njaboot nga ñëw sa alal nga ñëw ci sa lépp nga ñëw wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu dem demal Cerno Birahim Mbacke yaa di ndam Cerno doy nga no ñu ñëw daara di tollu de ak Sëriñ Tuubaa ki ñëw daara di tollu ci altar seen yow foo dem lëfër lëfër ji bari loolu la yàlla